ñëpp a ngi ci euh, jafe-jafe yi nga xam ne ni moom lañ amoon mooy ay jamono yi nga xam ne ni euh, ñi ngi doon def départ volontaire ñii maanaam amoon seeni retraite ñii ñëwoon fii am jafe-jafe ay kayit delluwaatuñ Euh, te nekkoon Italie daan fa liggéey liggéey bu baree baree bari euh, lu toll ci vingt ans nga di ko fi liggéey parce que liggéey maanaam bu fekkee da nga nekk Italie di liggéey euh, daf ci am loo xam ne ni sa retraite la ak yoo xam ne ni maanaam yow yaa ko doon cotiser pour ñu warloo ko fay yàlla dogal nag départ volontaire yi nga xam ne ni surtout nag moo ci gën a am importance mooy ñu daan ne woon nag léegi képp koo xam ne ni bëgg ngaa dellu sam réew da ngay delloo say kayit maanaam am ci ñoo xam ne bi ñu ñëwee delloo seen i kayit mën naa na la ba sànq ci suba jotuñ seen départ jotuñ seen xaalis bi ngeen xam ne ni moom lañ leen waroon a jox euh, jotuñ li liggéey nga xam ne mooy seen alal ji nga xam ne moo nekkoon foofa euh, te loolu yëpp nag euh, ñu di ko wax ne ñun pour ñun xaj na suñ autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi dafa am côté boo xam ne dañ ko sooxe ngir jàppale immigré yi nga xam ne ni dañoo sonn parce que immigration yaakaar naa ne li ñuy liggéey ci Sénégal di dugal plus de mille trois cent wala mille deux cent milliards ci réew mi bu ñu amee a dee liñ ci gën nag mooy ministre bu fi nekk rek daanaka suñuy këy day naax saay ci loolu ci zéro parce que Aïssata Tall Sall koro keroog ni ma ko déggee euh, te ñun dañ ne en tant que quinzième région du Sénégal euh, muy diaspora bi ñu am quinze yoo xam ne ni ah, man de loolu mosuma koo yëg kon nag na ma indil dossier yi nga xam ne nii mooy ñi nga xam ne ñoo defar départ volontaire ak ñi nga xam ne ñooy retraite yi euh, pour maanaam bu boobaa moom mu mën cee taxaw ndax wax na dëgg Italie am na ci yoo xam ne duñ ko bàyyi mënuñu ko suñuy doom réew suñuy doomi réew di ko jànkoonteel euh, ba moo taxoon nag ñu ñëwoon fii tey euh, doon indi loolu nga xam ne moom lañ doon waxtaanee immigré yi fi nekk yëpp wax dëgg yàlla indi nañ seen i kayit euh, ñu fas yéene koo jébbal maanaam autorité yi nga xam ne ñoo fi nekk te li ci liñ ci gën a mooy maanaam biñ koy def dañoo amoon ay avocat yoo xam ne dañ leen a jëloon te avocat yi pourtant ñoom kenn waru leen fi a jiitu mais gisuñ fi benn avocat boo xam ne ni mi xaalis defoon nañ ci lu nekk loolu nag di loo xam ne nii wax dëgg yàlla ñu ngi koy naqarlu ah, bëgg ministre bi jot ci ak président de la république bi nga xam ne ñun ñëpp moo ñu bokk yilif quoi ministre bu fi toog ñu jël dossier yooyu jox la mais dossier yooyu duñ ko jël dañ ko ministre boo fi mu nii boo jox tey dossier yi boo lëgatee tamit buy dem daal koy dugal ci tiroir yi parce que ñun dem nañ fi seeti Amadou Ba waxtaan ceeg moom lu bare bari mais defee ñu dégg ñu am naa yaakaar ne Aïssata Tall Sall bi nga xam ne ni moo fi nekk te avocat nga xam ne wax dëgg yàlla askan wi la fi daan nekkal daan leen xeexal daan xeex ba bitim réew xañ na danañ jàppale incha allah ñu am ci li ñu bëgg bu soobee yàlla dossiers yi suñuy maanaam luñu suñu alal ju ñu liggéey la ñaanuñ ci kenn saraxuwuñ ci kenn parce que day alal joxe dañ koo liggéey mu nekk bitim réew maanaam munuñ caa jot parce que daf cee am loo xam ne état ak état ci boppam ñoo ko mën a dox ñun nag li ñu man mooy wax ko rek lañ bëgg buñ ko waxee nag xëy na état ñoom ñi nga xam ne ne en tant que ñoom ñi ñoom ñi dugalante xëy na bu boobaa ñoom danañ ci mën a jàppale ñu jot ci ñu jot ci xaalis boobu nga xam ne immigré yi ci boppam ñoo ko waroon a jot te jotuñ ko